Babacar Mbaye wuri wa dem na koy xoojum gan tali bakk war mbaam ba lu waay no njaay mu lamb maa la ko diggante Bébé Diène Gackou 2 lamb wàllum teel a ku ñëw ci buntu ba ngay dem Bébé moo xees woon ñu ginnaaw Bébé Diène mooy mbër mu xees ma Galaye Mbaye Gackou mooy mbër mu ñuul mi niroog Cheikhou Diène yàlla ko yàlla yërëm ndeysaan Cheikhou Diène na xam naa sa mbër la woon non non dafa dafa niroog Gackou rek dëgg la te bëri na fi tàkkusaan bu ne dëgg ku bokkoon ci waaw dogal bi nga xam ne kenn di ci mucc moo ko fi jëlee. du njàmbaara fi bàyyi nit. du yaafu sa fi jëlee nit. cay dee yàllaay dogal. cay dee. moo ko wax dee la njëkk a bind ko dund. Lamine Golo ko suñu la nga toog. Babacar Mbaye maa ngi nuyu Serigne Cissé sama xarit ba. nuyu sëñ Jili mu sa euh, borom léegi léegi. <laughs> Eh, di nuyu waa Marsa Dior. waaw nuyu waa Marsa Dior. kenn du mbay jub sama téyeer bu mag bi ndaanaan ba. Moustapha ak diaspora bi. nee naa lu rafet lay ñëwal gars yi. marché Dior kooku ak Moustapha Dramé. arbitre sifflé na wuri ba dem kii wax ma dem nga taali. toj na nen toj yàq cuuj. maa ko wax. du ko joxe nawet. gàkko ngi xaaj géew gi. dëgg la. gàllaay li ma wax loolu neex. da koo bëgg a wër. non gàkku deux dafa bëgg boot. cubukaay bi ba jéem. dëgg la boo xoolee li muy def Bébé Diène bañ ko. waaw tegtalub làmb xaw nañ koo nduróole. tuuti. ndax ku ci nekk am nga tojtal ci sa ngemb. dëgg la te pitax yi ñoo nduróo. ñoo nduróo de. abu xët am na fukki mel ak juróom. xët yëpp ay xët yu weex la. waaye yëpp yu weex la. yëpp yu weex la pël bu rafet. ah mais est-ce ne suuru làmb mbëri dañuy soppeeku. waaw ndax dañuy daaw. man de xàmmeewu ma leen. dañu mel ne ku jël. xam nga gàllaaj lu am la ci mbër combat bi bëgguma si peegu saaku combat bi bëgguma ñu bëri si peegu saaku yi de. saaku yi de fekkiwul kenn. combat million kenn la de. combat bi du combat ba ba aussi baatu tuus yi du combat baatu tuus de. déedéet. combat million la. bu wër. ci million terrain bi ñu war a ñëw bëree. Bébé Diène daa bëgg dellu si wan ni li ma fi daloon dog dog la rek. dëgg la te nangu na ko. waaye gàkku da ko ne ma may ndax damaa war a des ci làmb. combat bi maa ko tuddee combat sooke. mais yow tamit c'est normal parce que kenn ku ci nekk tey bébé bu génnee fii. ñaari ndaama lañu waaw mooy yoon. saako yi fekkiwul kenn. géew bi du tëju mukk mbëree dox uti ko. mais est-ce doo bu la dafa may jox Balla Gaye façade bi nii. waaw dafa may jox Balla Gaye. bu njëkk ba. waaw waaw. waaw. Ousmane Sonko xam naa ko bëgg a ëmb daa bëgg a ëmb xam na ko. na négocier ak moom. waaw mais Abou. waaw jël bu rëy nar a am ci làmb bu ciy daan sa morom jël mën na gëmu mu mu gaaw am jël la combat bi. waaw mais day nga fàtte yàggaay bi. bu làmb ji yàggoon lool. bu jël amee nga fàtte yàggaay bi ndax jël doon ko sa bu dal jeexal bi de da doon ko sa bu dal mbër mu gàtt quatre appuis yomb ko ci biir ñaari mbëri tolloo dëgg la ndaama ak njool la quatre appuis mën a yomb Bébé Diène doon na korosé yi daal gàkku ñëwagul de ñëwagul de rappel nañ ko yëgul waaw deux fois daal message nañ ko ñëwul waaw ñëwul bu ñëwee ndax dana ko fa xaar <laughs> ñu ngi koy rappel moi di ko waaw ah, waaw moo tax bu ko appel bi ñëw ndax du koy ndax dina ko yëg goow mu yëg ko de ñoom ñaar su ma doon Bébé Diène du ma diriger combat bi mu ngi diriger la waaw mais ñëpp nangu nañu mën bëreem kon du ma diriger dëgg li nga mën mën na laa xañ dëgg la ndax ki nga est-ce ne Gackou ci tànk tànk Bébé Diène bi la jëm. waaye doo dégg li ma la wax moo li nga mën. Ah. waru la ci biir lu bari. ndax su ma dencee nga andi su ma andee balaa ngay comprendre ma tàggoo. dëgg la de. la a nangu nga yàgg ci géew bi gàcce dëgg la. combat baa noonu ñaari xale yi Galaye Mbaye. en tout cas yaakaar bu sens balaa ñuy songoo. tey Serigne sama xarit. gàkku buy ñëw day xeex. waaw Bébé Diène day moom. dëgg la ndax Bébé Diène da ko bëgg a dóor dóor koy jàpp. waaw. bu fay nga gis lu rëy. sàccante bu garaaw mun na faa ne. comment benn congu la mun na ko. mun na benn congu. waaye songu liir mun na fa am. mais ngi doon ay coups yi solo. mani Lamine Golo sax a ngi signalé gàkku. Bébé na ko. waaw ku yi baaxut si biir baaxut mu koy mbax loolu mu koy mbax waaw waaw mu ngi koy mbax <laughs> mu ngi koy mbax dañuy xeex mais gàkku li la bëggoon da mbax li mbax combat Sokhe la nee naa leen jël la jël la jël ah! mooy lan. loo bëri bëri xam-xam. xaar yàlla. ñëwal lii. ko jeexagul. Lamine Royal Barça la. Real Barça loo bëri bëri xam-xam. waaw doo xam kuy daan. doo moo tax làmb nii mel. la ñoom ñaar ñëpp a ngi calculé. te ñoom ñaar ñëpp ay bërekat lañ. ay bërekat lañ tànk jeexalul làmb ji de. non koo si jël tànk mun noo ju génn. <laughs> parce que dañoo bëri tànk. waaye sama gars yi laa bëgg xam-xam lañ. non ñuy ñooñu. waaye yii ñoom ñaar ñëpp mérité nañ ku daanu sax mérité nga. dëgg la ndax xam-xam la am. Bébé Diène tey la mu sa joxe la waaw tey waaw tey la mu daa xam ki mu am dëgg la gàkku du cuune de. gàkku du cuune jën daa am fu mu jógee. a wane ni samay supporters. na xool buy dem bu baax. parce que gàkku mi ngi koy piégé. parce que lu mu gën a ñëw di gën a oyof. te gàkku bu jëlee tànk bi day aj kaw. waaw waaw. waaw waaw. te gàkku xel maa ngi ca tànk ya. moo picc nga sa kaw xel maa nga sa suuf. muy muy mel ku soxlawul tànk Bébé Diène. mais nag na xeex bu baax nag. waaw waaw bi ni muy demee neex na ma dee. trop te yóbbu gauche bi te yaram bi du dem. gis nga gis nga. waaw non Bébé Diène bu laawee am dara. laaw dama koy tere si bëree. mais bu dugalee fausse frappe day dugal gauche laaw gauche droite. dëgg waaw noonu fekk muy liir xool. mën na flexionné jaar fa. waaw mais laaw bi da ngay ànd ak demi flexionné. dëgg la waaw xoolee ku Bébé Diène da koy jël. balaa Bébé Diène di comprendre fekk romb na ko. jël na ko wala ñu ko jël. jël na benn de. jël na kay ñaar boobu remise boobu dal na de. gàkku bu yàggee dina touché wu. gàkku moytul ma góos góos yi gàkku loola tee dóor. ni bagaaral. lii yombatul lamb ji fulla ak fayda ak jom ak ngoro koy maye. ak fayda ak maa la wax loolu Abou. Bébé Diène xeex bi rafet na. ni muy xeexee baax na lool. ñaari booy yi liggéey nañ xoolal tànk yi. dëgg la non lii Real Barça la. Real Barça la du yomb. dañuy naxante rek. may matul ma pël Fuuta bi kii bis mu déggee olof ñu dee de. <laughs> waaye tey gis naa fi ab Sinois. mu tuus. tuus mu ma jaaxal ci ku dëkkul ci réew mi. <laughs> ñoom ñëppay daw ñëw. lamb ji foo moo xamante ni leen taa nga gis ay tubaab waaw waaw. jël na jëlaat na ko jëlaat na ko. jëlaat na ko. non loolu daanu ko. mu loo ma seen ma la loolu daanu ko. lii daanu ko eh, bàyyi loolu. gàkku da koy fooyee. bul wax loolu. loo non bon jël na tànk bi ñaari yoon te daanu ko. mënu ko see daan. xoolal day paraake rek mu wàcc. Eh, aywa bul wax loolu lambaloo. fii bu yebee jeen jàpp. da nooju. lamb jën jàpp baax na. lamb la fu la Bébé Diène jëlul ci kiwis bi. Ah. ci suufu kiwis bi lay jël kon nooñu da koy yóbbu. Bébé Diène ñi ngi bëree nag. bu gàkk génne fi ma xam ne mbër la Bébé Diène na ko moytu loolu gàkk wutal ma xam ne mbër la. waaw ndaanaan la lii too sonalu ko ah Bébé Diène lang na. Bébé Diène jël na coup. jël na coup foofu de. Bébé Diène jël na coup newoon naa la gàkku li mëninam la. mais bu génnee fii ma xam ne mbër la de. gàkku da ciy yow. da ciy génn moo fa téye boppam. bu ah. ko neexee day bàyyi ngeen mu daw bor xam nga ne moo fa boppam. mën na see génn lamb la mën na see génn. bu ci génn ma xam ne mbër la Bébé na xeex na xeex. Bébé Diène moom jàppaagul de. jàpp jàpp ba la ko xañ. lamb lamb la bul wax loolu lamb la jàpp ba la ko xañ. xañ na ko jàpp ba. oh papa Bébé Diène kenn du daal yi. booy laal mbagg yi muy roulé. dëgg la mais boo jàppee ngeen li sonal ko. dëgg la ndax Bébé Diène rolos baax rosool yi ñoo baax. bis boo ko dóoree naax ñàkk nga ko. dëgg la da lay zo da lay mboot. mbaa du songale ba gàkk dóor bi. xoolal am na ngemb de. waaw day fayu waaye fi am na ngemb de déedéet catu ngemb la. dañ koy ngëb. galaay bul waxati loolu galaay. ngëbul ngemb. daa jàpp loolu wóor na galaay. lee mu jàpp mun naa dag loxoom ci gàkku arrière. Ah. ndax catu sër day ñaw bu tooyee abu yow tamit. laamu nga ma wax. Bébé Diène gisoo bàyyi na parce que arrangé wu ko. bàyyi na arrangé wu ko. loxoom ci biir waaye gàkku daal. ak xamal ñaar gàkku day bëree kat. ba bañte nañu. neewoon naa la ko lamb la gis ngeen lamb ja. nee naa la moo fa téye gàllaay gis ngeen lamb ji gàllaay. ay xale lañu gis ngeen lamb ji. Real Barça booy yi dañuy bëree. dañuy bëree dañuy bëree. dañuy bëree. Eh, waay ko. ba dina ci dina ci génn. fekk mi nga jaar fii daf ñu naa la mbagg yi lay bëree. da ciy génn. da ciy génn. waaye bàyyi leen loolu ko gàkku da koo ko ca kaw mbaar ko. lamb la bul wax loolu. daanaan la mais daanaan lay bëreel. lamb la bul wax loolu. gàkku daanaan ngay bëreel. waa dina ci génn. non bii na xoolal génn na sa. génn na ci. waaw lu ma wax. waaye lamb la doo nit. lamb la yaa xam lamb. fa ko jaar la. sama xel war na ma tey Moussa Faye ngay numéro ba da ci génn daa koo koy décidé rokat na ko de bébé Diène maytul foofu rokat dina ko de maytul fi mu la àgg bébé rokat dina ko de day noppalu day ñëwaat waaw bébé Diène gaañu na bébé Diène gaañu na gaañu na bébé Diène gaañu na waaye bébé Diène bàyyi na yow bébé Diène gaañu na de oh bébé Diène yaru na gaañu na de oh bébé xamee wu ma la lii bébé xoolal lamb lamb jom la lamb jom la non otal la lii otal la lii ootal la fa mu téye lay ootee mun naa bañ neex. waaw waaw. tey ay ay bibliothèque lamb laa fii bébé jéen jàpp. waaw bu fee sonal gàkku. dëgg bu tooyee day ñaw. mémoire bi lay yàq waaw manto mooy di téere bopp. ko jaay. day yàq. mbëri ba gis nga ku gën am jom gañ a gañe dëgg la waaw dëgg na woon naa la du yomb du yomb entraînement koy jeexal mu koy ëpp entraînement mooy dem dëgg la daa entraîné de dëgg la parce que bu entraîné woon du encaissé lii déedéet déedéet te gàkku mu entraînement bi daa wóor te gàkku mu ngi koy def moo waral ma ne heure bii ak heure fajar na ko mbër ndax fajar moo lay may endurance bi sa yaram tooy ak sedd bi boo ko tàmmul ci fajar doon bébé jën naa ñàkk Mourier ñi ngi sàccante ñoo ñaar dëgg la ku sa njoxoon loxo njëkk a rëcc rek dugal ko dëgg la ñoom dañ ko séddoo fi ne nii bébé a ngi na ko yooyu ardo da ngi naaj ardo boo ko attee da ngay yàq fi ñu toll dëgg la waaw ardo deret ja bisaab bi bu war a jarul attee mais bu dee day walangaan jar na attee donc bon nee mën na koo njiin njiinum ginnaaw sax gis nga ko Bébé Diène dafa wóolu bëreem. daa wóolu bëreem ni muy taxawee wóoluwuma. day ràcci day ràcci. day ndaanaan. dëgg la day ndaanaan mais kii daa xam bëreem. kii ba mu jaar si góos bi. déedéet déedéet. mais nag Bébé Diène jàpput de. waaw. mbaa kat. Bébé Diène loxo bi xam nga ne lii ko sonon waaw waaw. pour du ko manuel. bërëm bii mooy bëre fii feeg dañul bëre bi du jeex. ko man loxo yu ñu jàpp feeg dañul bëre bi. mbaa du ko man wel gàkku daa ci wel. mbaa du ko dóor tàgg fa gàkku téye moo ba. mbaa du njiin. ah boole na loxo bi ak ngemb li ardo. waay waay waay oh. booy fay leen waay. ñoom ñaar. waaw waaw mais gis nga jël volume bi. waaw yokku na. mais yokku gi waroon na kaa gën a gérer. parce que gis nga première suuful bi avant muy génn mu daaj. kii day wax day jox adversaire bi confiance. arbitre soufflé na. arbitre waat na. gars yi yaru nañ de. yaru nañ kay. fi arène nationale la. yaru de. mbër yàgg na fee yaru. moo tax boo ñu taxalee. ñu indi la baare ana galaay. galaay ñëwal nii waaye galaay ñëwal munoo waaw waaw. oh. dafa neex. ña ngay négocier. ña ba. gàllankoor ña waxaale. waaw. Abu. deñ sa ubul lamb ku takk ngemb ragalul mbër na moytoo denc li mu yor waaw indi li nga denc balaa sa adversaire di xalaat nga génnee ko waaye Bébé Diène dafa may gàkku mu denc li mu yor ba pare xool li mu àndi mu feree na ko ci xoolal ma mu koy rappel moi ndax appel yi gàmmu gaaw gàkku dana ko bàyyi xel waaye yëg na appel am yëg na appel ba li arrangé wul gàkku waaw li arrangé wul Bébé Diène moom la gàkkuy def di jaar nii. mais jant bu jaaroon nee rek bëre bi jeex na. waaw mais moytul ma mbër mu la liir ba pare doog laa jël. waaw te dàqoo koo bëree. waaw gis nga tey jii kii daa mel nañ kaa ko bul jaar nee. bu jaaroon nee day jël droit tam. te bi day màmm si koom maninam la koy fekk. dëgg la waaw. aywaay lambul. moo tax mbër boo xamee maninam rek da ngeen di yàq. lamb yow la lamb. hop la lamb. mais abu kenn du yow. la lamb abu yow mi dajale gilaay ak lamb. waaw taalibe Serigne Touba bi. kenn du yow. lii dafa garaaw. <laughs> Bébé Diène bi muy ñëw daa jekkoon lool ci Arsenal. dëgg la waaye mujj na koo xatal. ba yaa xat abu xam nga mbër bu takkee élastique. yàgg a entraîné bu defee gauche droite loxo yi day chargé. day pompé ba day bàyyi. waaw da koy xañ. mooy mëninam xam nga ne mooy mëninam mais gis nga bu gàkku jaaree nii day sënewu te gàkku loolu la du jaar nee moo tax bu jëlee tànk bi day dem demi flexion rek noote nooju ko mais nag li nga wax nii waaw mbaru sumbu jëmi am nañ problème latéralement gauche non dañ koo am complètement coince ba mu ñu nag ki nga mooy jën kay rek c'est la bu jaaree ne arrangé leen. waaw mais buñ jaaree am problème boobu. dañuy am problème mais père war naa réparer loolu. dëgg la mbër yi doon deux pieds. même buñ doonu deux man côté bii. mais ka bëri ñoom jéen kay lamb lamb boo xoolee kiwisu gàkku yi xam ne li mu yéeg diin moo ëpp yu kiwisu bébé jéen yi xoolal arrière kiwisu bébé jéen ci genou bi jëm ci fes bi loolu daa bàyyi gàkku da koo compale sidit la bu talleeku sidit la bu talleeku day arrière yéeg na bañ a bàyyi xel mën a bëreewu Bébé Diène bëreeg la mu bëree woon sànq. mais combat bi maa dina am jël. gàkku li mu gàkku li mu yor bu ko gëmoon exploité ko comme ni Bébé Diène di exploité ñibbi nañ. yàgg na mais ñi ma da koo respecté ndax bëri waaw te loolu moo dul yoon. maa dina am jël mais gàkku dafa am benn dynamique bu mu nekkoon. Bébé Diène am fu mu ko am fu mu ko dencoon. Eh, mu nekk gàkku waaw dafa yàgg. eh. Ah. première bee gën a neex deuxième bi. niñ defoon ale bi defatuñ ko retour bi de. retour bi de ñoo ñu fi yaru. dañuy modifié. dama la doon wax naa la yaru nañ. waaw buñ yarul woon dañ leen avertiser. combat mbaa dina am jël. non day am jël. moo taxoon ne woon naa la combat boobu day yàgg dama leen ngeen seetaanaat ko. Ah. ne woon naa la Real moo nekk nii. dëgg la du ma waxantu. lu ma la si wax mën naa dee. lamb la sama xel ñaaw na de. gàkku ndaama mu daanagu ko. wala bàyyi woo xel loolu gàkku ndaama gu mu jot rek da lay ñemee mën nañ koo wër nañ ko ndomba fii la mu dindi wër ndomba bi yóbbu waa ji top seek moo kala moo digoo xoom dëgg la gàkku li muy niit gàkku li muy niit li muy niit li muy niit bu yeggee bu koroseem dalee ci mantan bébé jën bébé jën day toog mais gal li may xeññee ñeexu ma de waaye dama ne la match nul du fi am abu galaay bul wax loolu match nul du fi am ah mbër yi déterminé lañu dama ne la. abu bis bu gàkku sëggee bay sigi dajeeg manton bébé jeen bébé jeen bu ko kuu bi dalee day toog. bene round dina amaat de. non gàkku teg na bëre bi si yoon. beneen bébé jeen ba léegi mi ngi ràcc. beneen moo tax bëre neex. beneen round dina amaat de bëre boo ko mënee kenn du la yeb. dëgg la foo taxaw dañ lay calculer. dëgg la keroog ba baax la taxawee fii boo ñaanee jonn boo ñaa ñi ma wala song ndax loo song risque la. dëgg la mooy xoolal kii ni mu taxawee ni jonn. waaw te te gàkku ñi ma wala song. man bëree ma ko waral. mais bu mu naagu. mais mais galaay wax dëgg la de. xoolal kii si sawaay ji. dëgg la xoolal ci ginnaawam. xoolal gàkku benn sidit ngay gis. Bébé Diène daan dagg ci digg bi. boo xoolee physiquement. Bébé Diène entraîné wul ndax amul temps ba. diggante bi ñuy wax naan ñëw na fi. ak bi muy am combat bi matul 6 mois. gàkku de mu ngi woon ci biti di entraîné. waaw ki nekk si biir ak ki nekk si biti mënuñu yem féexlu. indépendance ak ku moomagul sa bopp mënuñoo yem jikko. mënoo boo ko kii entraîné si mbedd mi. mooy boo ko ñàkkee sa yoon du sori moom sa bopp daa gën loo gis. dëgg la mais tey Bébé Diène lu mu def démérité wul ndax daa gëj si géew. waaw daa gëj si géew gi. jom la. gàkku bu mu yàq yoonam ci gëj na fi naa ko faxas. mais ba jënd ku ñuy fontoo wax nga ko mën a ma mbaabe mais xoolal ñu ngi négocier. ndeysaan li may xeeñ ñeexuma. non lii xeeñ ñeexul la de. sama xel ñaaw na de. xool nga ko de. sama xel dina ma waaye lii yàlla mu doon loolu de. sama xel ñaaw na. ah. waxoon naa ko. xiinug septembre yàgg yàgg bul jaaxle day taw. Ah. te Tambour moom mu la téye fot say bagage taw waaw waaw wat taw yooyu di am doq yu ngand yi kamu duma ji la am ca de waay waay waay galaay yaa galaay kamu duma am ci combat bi de aha ah, kay aha ah, abu bébé jën al mun naa fekk si gàkku bu gàkku yëgul ni bébé jën a ngi koo yëg sama xel ñaaw na de Babacar sama xel ñaaw de mbaa li ma du am ci combat bi. yaakaaru ma ko de abu dëggawu ma ko it. match na cee am de deux avertissement trois avertissement deux avertissement waaw noonu la gàkk amoon na beneen avertissement déedéet amoon na amoon na beneen. Eh, am na lu ma gis sànq de. loo gis non Lamine Golo ko accéléré ko mu am trois avertissement nga am benn non coach kon si baa ngi liggéey man lii dama koy soxla biñ ko arbitre soufflé rek da koo xool moo ay waay gàkku daan ne bëxër xool ko suba ko suba taalal ko trois baaraam taalal ko deux baaraam na ko fexeel ko am mais kii du ku ñuy songu moo gàkku daa mën loolu mënu koo jox ndeysaan da koo mën a accéléré sama xel ma la may jox kii jeexal te mënu ko accéléré gàkku accéléré ko wallaahi mais bébé jéen ngembam li mujj ñaaw de. oh pop pop pop. sama ñaaw na de. ah dugal na góos bu saf. combat bi mun na jeexee par avertissement de. non bébé jéen borom jom la nag. combat bi ma gis. Oh. mun na jeexee par match nul. xoolal ni mu ràccee rek taxaw te kenn. combat bi gëmatuma jël am ca abu yaakaar naa jël. jël du am. décision arbitre. décision arbitre lay jeexee de. Ah, wax nga ko jël du am de. loolu yaa ko waxoon. laalante nañ ñoom ñaar. Eh, mën naa am nag ndax borom yi jom lañ. soo tot tot tot tot moytul ma ndaama yi yaa ngi toj arène nationale. kenn jëlatul sa kenn jë kenn jëlatul sa sa sa responsabilité bopp. mais jéem gàkku gàkku ngi dox. samp nañ jàppante nañ ay baaraam. gàkku jël responsabilité de. waaw waaw ñu ngi dégloonte. jëlu ko de. round. Bébé Diène nangu jël benn responsabilité moom tamit. waaw waaw naxante nu ko round nu ko tubaab di waxe yow. tubaab nee na round d'expertisation. waaw waxal yow galaay. xam nga xam nga round de sensation boobu tubaab bi wax. ku mën a liir jël ko jël ko de. Mbadu du ko si daan ca daan. waaw ma lii bañu ma loolu. Mbadu ko ca daan. mani nekkoon ci ku ci ci physique bu wóor. non da koy da koy mani li mu daj ci jéem moom Bébé moom rek a ko xam mais bu doon Bébé Diène ma ñu xamoon làmb ji yàgg maa la wax loolu. endurance ba wax naa leen ko indépendance mooy ku moom boppam waaye ku amul indépendance mënoo def la ne. mais à part aujourd'hui tuddee naa ko gaynde pël Fuuta yi de. gaynde la de. waaw pop pop kii mooy gaynde pël Fuuta yi. reer ñu ne la demal ak reer. Oh! ku tëral la. bokkul bokkul bokkul bokkul ginaar guñ tëj ak ginaar guy doxi ban mooy gën a suur bi doxi mën naa am gel de waaw waaw mën am lu ne waaye biñ tëj mën naa am yaram du am gel de mooy bébé day ñàkki njaboot sax lamu yaatu fee moo ko may volume waaw mais bi nga doon wax si kële nee la mbër mu la gën a ñuul ëpp la doole dëgg la feeñ na dañoo respecté wul africain mais africain yàgg naa def jom. yàgg naa def jom ndeysaan. lii rek war naa joxe exemple. dëgg la ba si boxu ku la gën a ñuul moo la ëpp jom. dëgg la. indépendance indépendance su France li tax ba tey équipe nationale France di équipe nationale Afrique. indépendance su France nit ku ñuul la ko ànd. dëgg la loolu. boole si nit ku ñuul. dëgg la waaw dañ fonk mani. bis De Gaulle ñëwee Sénégal. ñëwal na monsieur combat bi. discours bu rëy ba. wal jooja Ndiaye bokk na ca ña ko libéré. jëlal ma combat ba ndeysaan. ma ngay wax démb. ñëwal na monsieur combat bi sama xel la ma waxoon. daa këfalu wala daa ngemb. combat bi a nga wax xeeñ na ma de. la ma waxoon mu may xeeñ sama ñaaw na. du ma waxantu ci lamb de. état mais ñoom ñaar ñëpp démérité wu nañ. commencé naa yàgg ci lamb de. waaw waaw ñaari bagaar lañ. kenn des ma su ma kenn ku ne da ngaa boot indi géej way bëggatu la am defe. ñaari pi ñaari pied gauche la de. waaw waaw te Medina dañoo yeewu. pied gauche ak pied droit la. wallaay ñoom ñaar ñëpp a bëgg victoire. Medina bëgg na victoire géej way bëgg na victoire. dëgg la géej waay da waaw. Cheikh Super jamono ñàkk tey kon kon fi mu ne nii Géejawaay bëgg na ko Medina namm na noo yëngal waaye ndax yëg nga ni Diène Kairé Zarko ay weñ yi daje lañu. mais est xam nga bi du am jël. waa Medina lu leen waa Pikine bu rebaloon si ñëw si si eh, Iba Mar ñoom fayu nañ ko. fan yi ñu ngi ñëw ak doole. yàlla na leen yàlla dooleel. parce que ñun tamit dañuy liir làmb ñëpp lañ fi nekkal. muy entraîneur ba. muy coach ba muy supporter ba te waa Medina nag xaw nañoo yaru duñ damm siège. dëgg la mani lamb booy bëree sa buntu kër sa sañ-sañ sa fit sa doole mun naa feeñ. la waaye boo rombee buntu kër gi sa xadar da ko war di wàññi utiliser sa doole. mu daawaat nañ Pape Ngagne daawaat ñëpp naa ne ndox.